bi réew mi doon yaq waroon ñoo taxaw temb ne réew mi dañ koy defar parce que réew mi dañ fi amé njabot tay ñom ñoo ngi indi ay njabot fi ni indi leen fi bay leen ci ay jafe-jafe li dafa ñaaw dina ñew nak ci benn pa bu say say bu caga bu ma deg muy wax parce que kooku mënuñu ko bàyyi noonu mënuñu ko exclure noonu mënul demee noonu ko di wax ni depuis nag Moustapha Sy ba mu waxee coalition bu ñuy waajal ñoom ba léegi mënatul nelaw ba léegi nii mënatul nelaw te gis ngeen ndëgg sërëx yi nga xam ne moo leen ko bëgg a tegal ndëgg sërëx yi ñu ko bëgg a tegal mais sëñ Moustapha Sy man ba tey gisuma ni état bi mo koy xex quoi ki koy xex mi nga ca kaw tok man ni lu yëgul ciow mais nan lañ mëna nek ci am réew ab famille am problème famille ñu ne am nañ njit moy sen khalifa lutax mom mënu ci yëkëti mënu ci yëy wala mu dox ci ay tanki jam kon ñom sen khalif lan la leen jaral lan la leen jariñ ciowal famille la ciowal famille ciowal suuf famille ñu ne am nañ ku ca mag moom lañ jël mu nekk xalif bi ka ca mag na bu gisee ay xale di xëccoo ci benn mbir la mu war a def mooy wóole ñoom jéem leen jiboole la mu war a def mooy woo leen dox ci tànki jàmm waaye nag sëñ Moustapha li koy fàdd bu ay taalibeem ñàkkee fayda dinañ damm yeel yi bu ñàkkee fayda tuuti rek dinañ damm yeel yi moom motax tax fulla ak fayda bo la ko ci amul seen njit la nak mom ngeen gem moy euh, seigne mustapha ci ngeen ay talibem lay wax bu ngeen amul taxaway góor yalla bu ngeen amul taxaway fulla ak fayda taxaway bu ferme seen njit bobu gaay yi nañ ko sàkkal pexe gis nga rew mi nak dama dégg ben way ndaysan mu ne mi ngi am fanweri attaque je ne sais pas waxa waxa wax wax nee na gis na Macky Sall réalisation yi mu def ci réew mi premier mandat am lu mu fi def indi fi ay théorie yu baree baree baree bari ba fu mu mujjee daanele nee na Macky Sall sax moo am na droit def troisième mandat man dama xamul nag Macky Sall ñii nii saa yu demee di leen jaale ji rek ay waxi dof jóg Macky Sall saa yu jógee dem di jaale ji ñii rek ay waxi dof kese la ñuy wax. té ñom gis nañ li askan wi di dund gis nañ jafé jafé yi sénégalais di dund au lieu que ñu wax ci jafé jafé sénégalais yi au lieu que ñu wax ci jafé jafé sénégalais yi mais il suffit que ñu jox leen ben mallette rek même bu féké li ñu wax day day blesser sénégalais ñom dañ koy wax. même bu féké ñoo xamné ni cadre bi mu ko yëkkatee sénégalais yi day mer bay toj ñoom dinañ ko wax parce que jox nañ leen xaalis. ah sëñ Modou ma ngi ma ngi koy ma maa ngi Badara ngi de ki bëgg a damu tànk yi nee du état mu nga ca gaw tok man ni ku yegul dara xew mi ngi man ni ku yegul li xew ki bëgg damu xam nañ ko. Macky Sall sa yu ci leen indi leen maletu xaaliss rek nga dégg fi ay wax yu ñak fayda wax yu di sénégalais jafé jafé yi ne choono biñ nekké ay boy yu ndaw toog naan ay Macky Sall sa premier mandat def nga fi loo xam ne senegal yëpp gis nañ ko kontaan nañ ci yow waa sa deuxième mandat cata ci dugg waaye nag ñi ngi xaar ba ñi ngi waajal beneen mandat bu war a ñëw mais man dama yaakaar ni ñun dafa am ñoo xam ne dañoo yaakaar ne sénégalais ñoom ñoom dañoo gën sénégalais sur suñu biir lañ nekk day ay sénégalais nekk suñu biir mais ñoom yaakaar ni seen deret moo gën suñu deret ñoom seen yére sax moo gën ñun suñu deret ba lu leen neex rek lu leen neex ñu bëgg ko teg ci kaw sénégalais yi xam na ni wax bi biñ ko waxee mu metti sénégalais yi dañ koy wax. yow de nit nga ko xam ne lii yàlla ci yow. déglu ko wala mu am lu ci ca bëgg leneen déglu leen ko waaye yow de nit nga koo xam ne li yàlla dogal ci yow képp koo xam ne neexu ko wala mu am lu mu ca bëgg leneen te te si wutub dogalub yàlla dana dëkk ci coono ndax nit koo xam ne ba mu génnee fa mu doon jànge directeur la njëkk a nekk nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale fal parti ci menn at nekk président de la république koku jappu yalla la kep ku bëgg noppalu wala bëggo banko ni jalal yamul mu bëgg la te sopp ci yeneel la yalla jox ndax ken mënu ci dara njabot gi nak suñ xali ni mo ci mag moy suñ kilifa mom la ñu xolé suñ bàyyi tay ñun rakkam yëpp liko ko ci man sëriñ jiri ni ak ñepp ñi ngi ci ginnaaw jébbulu ji mom def ko suñ bàyyi ben pass pass do nga fam soxna mam Fatim moy mooy suñ mag ji jigen ko kuy kilifa diine bëgg la war nga dalal sa xel ci lo mëna def waye nak njabot gi da am ñoo xamne faaw ñu sant leen gëreum leen ndax bi sëriñ bi làqu ak léegi dama taxaw su ngeen muy sa njabootu bokk kii dëkk daaru ngoti te ñepp day responsable politique seen xam lim bi dama koy bañ def jëm waye xam bu baax li ñu sét de nga nee ñom ñepp ay responsable politique lañ kon ba tey waxuñu fa affaire mara affaire responsable politique motax ko kon ñoo di wax ci wax ci politique ñom politique ma lay waxe ñom parce que momu ñu ni nak xamna ni taxaway yi ngeen am bi seen bi joge di sant Ablaye Mbaye Pekh mii kenn jiitu ko digganteem ak bi du diggante diggante doom la akub taalibe mu doxal ko wax ko waaye président na la leer ne ñun ci réew mi lañ dëkk fi leen juddoo fi leen yaroo man am naa fanweeri at yu topp suñ xel li mi am juróom fukki at yu topp suñ bàyyi ci ñaar lañu yar ngor ak njullite ak jàpp sa njaamu ak jaamu yàlla te bañ ragal ñun nag ba illaa yow mi diini nga nekk ci réew mi di fi dox di fi wax di fi bëgg duñ bëgg mukk li suñu bàyyi bëggutoon lenn dong lan lay ñaan ngir illaahi wa rasuuli président boo ñëpp koo xam ne daan mën a feeñal suñu yéene sum suñu motli mottali suñu taxawaay ndax bëgguñu bunt yu bari ndax bu bunt yu bari rek doo xam ñu ne ñan ak lan lan man te réew mi nag sëñ Maxtaar nee na koo fi gis aw làmmiñ dama lay waxe te yoru fi bopp di ko waxe ay tànk duñ ko waxe làmmiñ lañ la yoroo di ko waxe te moom mu fi jóge mag la bokk ci mag yi yi xamal nañu nag mbokk gi xamal ñu réew mi ñu nit lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal ci su suñu diggante yow du am kenn nit koo xam ne mu ngi wax ak yow ci yow amul ndax résultat nga am sa premier mandat dong doy na sëkk sénégalais yi nit da ngeen de nee na premier mandat Macky Sall doy na sëkk e yi déglu leen ko déglu leen ko am na fi fanweeri at daanaka wala ñaar fukki at daanaka sa premier mandat li nga réalisé si ci agriculture réaliser ko ci infrastructure réaliser ko ci santé ak yi nga fi soppi ak politique yi nga fi mën a am na ñoo xam ne bu mu ñaari ñaar fukki at ci réew duñ ko def ce deuxième mandat bi yàlla moo na naqu indi cat ci réew bi waaye nag ñu ngi xaar yàlla di xaar yoon bis boo jógaatee da xam ne ay góor nga ko sëbal te du amuñu luñ ci ragal te itam nag lépp loo xam ne yoon may na la ko kilifa diine yi daan ci ànd ak yoon ndax dufuñ dina jàpp ni mënuñoo seet koo xam ne day ànd ak moom mu tambalé saga ci imam imam saaga sunuy bay, continue di nu saaga ñu diko galai ragal ay wax bi sallallahu alayhi wa mo moo nu gën te lu. waaw ki jaru sax may agalé waxam parce que wax ji dafa teunk lepp dafa teunk lepp mais nak mom amna fu lay wax né mom lepp lu mu len lu len jaral dinañ and ak Macky Sall nenañ Macky Sall lu mu fi réaliser ci walu agriculture Macky sàll ñi bay soble yi barki démb ñu ngi koy jël di tuur ñoom gis nañ ci teg nañ ci seen bët bay soble ba pare jënd rek des ci ñu ne buñ ko jënd ñu bàyyi liñ bayoon yàqu baykatu ceeb yi daaw ñu doon bay seen mbay bañ bayee ba nawet bu wàcc ñu jël seen gerte ñu leen chinois bi ngeen koy jaayee dërëm am nit ñoo taxaw ne mën nañ ci fay ñaar dërëm ñu leen dañoo ko jaay ñaar dërëm dërëm bi ngeen koy jaay chinois bi ku jël sa gerte ba ku dem yóbbu jaay ñaar ñu nangu ko ci yoon bi nit ñi nekk ci ndox mi dëkk ba mu nekk nit ñaa nga nekk ci ndox ma mënuñoo tëdd seen ay lal léegi ñoom dafa am nit ñoo xam te ñoom dañoo yaakaar ne sénégalais ñoom ay ginaar la ñoom ñooy ay nit dañu jël sénégalais def leen lu kenn xamul quoi léegi kam moo leen wax ñoom seen deret moo gën a baax deret et puis xalé bu ndaw moy wax ni néna fanwéré at la la am quoi fanwéré at yow fanwéré at heure bi la wara fekk nga dem liggéey nga tok di wax wax yu ñak fayda wax yu doy di yow est ce que yaangi gis choono bi nga xamni sénégalais ñu koy dund est ce que umpule umpule wo ko umpule woo yi sénégalais yi dundee parce que yow jox nañ la xaalis rek yow même bu fekkee li ngay wax sénégalais seen xol da dagg wala ñom ñu ci fébar wala ñu am ci leen met sa yoon neeku ci sa ngagn neeku ci ndax jox nañ la xaaliss yow sa sa poste fess na sa poste douf na sénégalais seen coono sa yoon neeku ci ba lu leen neex ngeen bu ko yëkëti di wax fit bi ngeen am bay wax moom la nit ngi am fit yi di leen tontu di leen wax ni xolal dafa affaire yi dafa doy gis nga réew mi yëf yi yi moo doy yow ne nga sa bàyyi ci ngor ak djub la legi ñun suñu bay ci ngor lañu lañu yar ak djub ak wax deug ta fu deug nek. ñu nek fa yow bu fekkon ci loolu la yar kon tay gi do gis ay fen diko def deug yow bu fekkon dañ la yar ci li nga wax nonu kon tay do gis ay fen diko tek deug yow parce que ci ay fen nga taxaw bako tek deug ne nga Macky Sall lu fi liggey am na ñu fi toog fanweeri ak liggéeyuñ ko ci wàllum agriculture nga waxee agriculture ñun ba tey lu ñuy lekk dañ koy jënd bitim réew sénégalais yi ñun lu ñuy lekk yëpp chinois yi ñoo ko jox a français li ngeen ni li ñuy lekk lépp tey jii bu adduna bi nekkoon ci jéye tey te adduna bi nekkoon ci jéye wala guerre amoon guerre mondiale am ñu sénégalais de xiif moo ñuy rey parce que am ñu lekk ñun li ñu lekk lu ñuy naan lépp bitim réew ñoo ñu koy jox sunu ndox mi nga xam ne moo nekk suñu dëkk sax ñu war koo roon yor ñun suñu bopp dañ ko jël denk ko waa bitim réew sunu banque yi nga xam ne tey ñun suñu xaalis bi ñu liggéeyee denc ko ci banque yooyu ñoom ñoom bu leen neexee ñu bloqué banque yëpp suñu xaalis ñun dañ ñu ko jot yow nga am nga am fitu toog sénégalais yi di wax seen métti di ñu am ci réew mi sénégalais yi ak contexte bi ñu nekk nii sénégalais yi jafe-jafe yi nekk inondation yi ñàkk lekk yi nga bëgg a toog fii ne yow mbirum agriculture euh, alaa doome na ci réew mi infrastructure nga ne alaa doome na infrastructure boo xam te ne yow saa yu ndox laale suuf nit ñi génn seen kër yi yow ndox bu wissé rek nit ñi génn seen kër yi nga infrastructure ok xam nga yéen da ngeen di jël sénégalais yi dafa ne sénégalais yi yéen xam nga lii nag sénégalais yi ñoo ko maye quoi sénégalais yi ñoo maye yii nii quoi parce que yii nii dafa yomb ay boy yu ndaw war a liggéey liggéeyuñ toog ci bopp sénégalais lépp lu metti sénégalais ñoom ñoo ngi ci lépp lu metti sénégalais ñoom ñoo nga ca gis nañ fi nii koo xam ne dafa jël sax ab na naayimam indi ko ci jàkka ji ndeket bu mu ko oote ci jàkka yëpp di ko jox pour muy nondu jabar waa ji la soxla mu dem jël jabar waa ji nangu ko waa ji génn di wax ñu woo ko ñoom ñëpp ne ko bul wax sa sëriñ moo moo jël sa soxna bul wax waa ji génn naa dafa rey audio jéggalu ne jabaram bàyyi na ko sëñ mais xam nga lii nii nii lii sa waay lii mais mais ñun lii lan la. li lan la ba ñun nga xam ñun bu amé ay soxna sax bu ngeen nobé suñu soxna yi da ngeen ñew ngeen nangu ko ci ñun il faut que ngeen respecter sénégalais bu fekkee bu ngeen sénégalais jox leen cër bi bu fekkee sen ay waju dañ fa nekkon amuñu won fit du wax wax yi ngeen wax yeen da ngeen wara a toog ciel nopi parce que sen waajur bu fi nekkon di wax yi doy di yi ngay wax yow dañ leen tontu ci wax yi il faut que may nit ñi parce que nit ñi dañoo ah. te nit dañu seuss il faut ngeen xam lolu xam ne ni nit ñi dañoo sonn dañoo fatigué te nit ñi dañu seuss choono bi nek ak état yi ni état bu fi ak mom di dund ci sénégalais di nax sénégalais di alal sénégalais bu amé 1000 francs sax ménébar bu dina jël 700 jox ko 200 francs Sénégal bu fa am cent mille francs jox na leen quatre vingt dix mille yi dese dix mille avec ça lii ngeen bëgg a fayee Sénégal yi yéen lii ba Sénégal sa saa nekk ci jafe-jafe ne état bi lu leen teg antoni ngeen génn ne état muy def se ok baax na yen yéen kenn gënu leen a doon ennemi sénégalais yi yéen yàpp bi ngeen yàpp sénégalais li xamul yéen foo leen ko teg parce que yenn yi yabaate la loo xam xamante ni yabaate boo xam ne ñun dañoo xamul yéen fu li ngeen jëlee yabaate boobu est-ce que ñun dañ leen war ñàkk fayda mais bu fekkee ñun suñu ay maam ñoo leen waroon ñoo waroon seen maam ay ñàkk fayda suñu ay baay waroon seen baay ñàkk fayda ñun ñàkk fayda boobu daggal nañ ko ñun ñun fulaak fayda lañ xam ngor ak dox ci njub bu fekkee mën ngeen dox ci njub ñu ànd a yéen ñu dem ci kanam bu fekke nak ci ay katch ngeen bëgg tok toog ba léegi ni nga ko toogoon suñu ay bay loolu dafa dak ñun dooleel nañ ci ay katch bu fekke da ngeen naaw di dugg ci di dem ci jaw ji bu fekke da ngeen dox ci bir suuf si kiraama yooyu ngeen ñi wan fexé len Sénégal am satellite bopam bu fekke da ngeen naaw ci jaw ji bu fekke da ngeen dox ci bir suuf di xam li xam li xew yom xew ak yëpp fexe leen Sénégal exploiter sen bop pétrole beeg gaz bi ak zircon beeg or bi bu fekkee da dox ci biir géej gi fexe leen jën yi am ci géej gi mool liggéey chômage bi wàññeeku mais mënoo leen chaque jour ngeen ñëw di ñu indil ay kiraamaak loo xamante ni wax rek ci wax kese la yam preuve ko mos indi preuve yu nit di teg seen bët nii bu waxee ñu ne baatin la a ah, kiraama la lan mooy baatin ak kiraama bu fekkee baatin ak kiraama waroo waroo leen ko wax dañ ko war a denc mais bi nga ñëw ba teg ko ci marché bi rek doonatul baatin ak kiraama da nga war a joxe preuve. parce que yonent yalla Moussa ba mu jàkkaarloo kat ya dañu de indi ay preuve di tek seen preuve di def ay xërëm ñuy gis mais yeen ci wax ra ngeen di bëgg tanké bo ba légui kirama la fi seen bi di waxe comprendre ko fu muy waxe déggoo ko fan lay waxe ak lan lay waxe bakkenu boppam lu ko neex lay wax gis nga sénégalais dañu fatigué nit ñi dañu nekk ci ciono nit ñi amna ño xam ne ci lal nit ñi am na ñoo xam seen ay doom mu ngi feebar mun ñu faju ñu ngi ket ci internet bi guddeeg bëccëg nit ñi buñ bëggee tukki mën ñu tukki jigéen ñi ba tey am na ñuy wasin ci ay saret yéen xam ngeen ñaata jigéen ñooy dee par bés ci accouchement ci réew mi xam ngeen ñaata xale ñooy dee ci problème biir bi daw li ko Guy Marius Sagna di waxee ngeen toog bëgg fee fàtt nit ñi ci seen intérêt personnel xaalis bi leen jox rek yeen sénégalais yi moom lu leen dal baax na sénégalais yi boobu ba léegi nag ñu ngi wax coono bi nga xam ne ñu ko ñu koy dund ngeen toog ne ko li fi def ok li fi réaliser man li ma ci gën a métti rek mooy mbay baykat yi moom waruñoo génn quoi baykat yi waruñoo génn wax ak waa ji vraiment barki dim mondial lañ nit ñi di gas seen ay soble di ko gas di ko di ko suul. ña bayoon daaw bañ bayee seen gerte gi bañ ko joxee ba léegi ay bor moo ci toog mun ñu leen fay seen xaalis mais il faut ñu respecter sénégalais yi il ñu jox cër sénégalais yi bu fekkee nag ñoo mun ñu saa yu xëyee rek saa yu xëy di wax luy metti sénégalais yi sénégalais yi nag saa yu xëy dina leen tontu quoi parce que lii dafay war a jeex ay boy ndaw boo xam ne maa ngi ci fanweeri attaque maa ngi yo non man sama xol bi mi commencé jeex quoi xam nga li ni moy yapp sénégalais légui ñom ñoom dañoo dafa am ñoo xam dañoo japp ni ñom ñom ñoo gën sénégalais quoi ba sénégalais buñ la gissé ñom mbalit lañ lay tek quoi. ba ñom sénégalais buñ gissé ñom mbalit lañ ko tek quoi gis nga nit yonente bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi and nawlo lañ àndoon mom du jël tankam di leen ko sahaba saxaaba foon du jël ay tankam di leen ko tek di leen wax ñu leen bës ma rayal ma fii dafa doon ànd ak ñoom ànd nawle waaye réew mi ngay ku jël ay tankam di teg ay ko ñu tëg naan sa jabar na ñëw bës maag nga am jabar mu nangu ko mais c'est quoi ça li moo tax Moussa Camara di leen wax li mi leen wax li moo Jiji di wax li mi leen wax li moo Omar Thiam di wax li muy wax lii moo tax soxna Xadi Baro di wax li muy wax ah ngeen bëgg fee nekk rek bëgg a fàtt nit ñi fàtt sénégalais yi soxna Fatou li nga wax rek sénégalais yi tamit ku respecté wul sa bopp rek nee nañ jaam bi moom lu ma neex ñu takku rek dagan na parce que ñoom ñoo bëgg nekk ay mbaam nañ ubbi seen bët yi ubbi seen xel yi naxa yi dafa doy nit koo xamante ne dañoo nax say maam nax say baay ñëw bëgg la nax léegi nga war foo ci say doom ñu nax leen nga say sët ñu war leen a naxaat mais lii dafa doy waaw duma dem nag te ñëw ma ci paa yi benn paa bu ñàkk fayda boo xamante ni maa ngi ko toog dégg ko muy wax wax yoo xamante ni non paa bi bu fekkee am na ay mbokk wala am na njaboot noo war nañoo wax ak moom quoi. ak Alaaji Maalik. papa papa dafa dàkk xaaral rek. man xaaral ma wax la. fekk naa jabar joo xam. xaaral ma wax la def guddi laa ko dawee. déglu ko rek tax nga daw ah. ay xëpp damaa xëppoo ndoxo. dégg ko rek. damaa xëppoo ndoxo xam nga daal. dugg ci néeg bi. gis kanam boo xam ni. man bàyyi ma ko fóot. ah ah. léeg-léeg mu yaakaar ni damay fanaan. nga naa ma sa tànk. déet bu ma tawee man na ma jàpp te <laughs> bu ma jàppee man na ma daje ndax moom moo ëpp kattan damaa naxante. <laughs> noo def xam naa ne man damay daw man damay fanaan <laughs> waaye dama ko ko damay daw. waaw waaw loo koy woon doo def dama summeeku préparé jël ndeganaay bi tëdd. eh mu def confiance. la la la fekk. bi mu génnee. <laughs> ci yàlla ma composé. paa yi la ñu am téléphone paa la ñu am bu góor ko bu ngeen yeexee ñu ray ma. <laughs> man ma papa looy wax ne ma ne ko kàr ma boori Kambouré. ban jot na. ndaw si génn ma boole li ma yoroon yëpp. ne ko ci menu mbuus. ba tey tegaluwaat. ah bu ma solee dara gi dina xam ne damay daw moo boole yëpp def ko ci muusum ñaar doon dëgg dugalaat ko ci suuf dafa am. mais moom lay wax mooy. yaa dafa mu toog sama. Eh, waay ndaw. ba yàgg mu dëkk-dëkk dugg gànnaat. bu mu génnee mu génn yërndu. gisuma ko xam ngeen ni paayu cage yi ñu am nii paay paayu cage yi ñu am xam lii moo tax ñu am ci ci dëkk bi ay ay ay ay ndaw soos noonu xat yi zaawak ay yu kenn xamu ñuy def lu leen neex ci dëkk bi di tëdd seen ay far di sans jëkkër ah lii moo tax ñu am ay mam jaara seen petit gàlle ah ndax paa yi am ci dëkk bi paa yi ñu ngi nii. jël muus ma mu jekk jéegu jéegu lu dëgër. eh waay jën. waaw waaw kon ndaw na. bi ma génnee. mbedd mi ma njëkk a yem. Oh, fa a tur na taxu. wéeru. wéeru def naa léegi à l'air. waaw wéeru taxu. ma tafoo. yaayay. ma tafoo. di xool bu tukkër gi seen ko mu génn dëngu. Ah. waaw taxaw di ma xool ba xam man fu ma jëm. ba xam ni. ba defee benn mouvement dina ma topp. da ngay ma def contournement wii. Eh, wii ko ba ca kaw tali ba. yàlla ni dareet dem taxi sama yàq. du ma ko mu taxaw. Eh, ah. barka laa ji Mali. dëgg ko gën. nee na du waxaale bu doon moom du waxaale waxaale wu ma. doo waxaale de. daa taxaw mu dugg. nga ko gën ma dëkk bi. ni ko loo daaw xeet naa ko. damaa ma foo jëm mën ko <laughs> mais man lima ci gëna lima ci gëna jaaxal sama benn way mu ko doon wax la ci ci benn panel parce que pa bi wax ji mi wax ni dafa woro nek sax waxu télévision nit ñi di tok diko di déglu di ko mag mu toll ni pa bi romb na 70 ans romb na 70 ans quoi mu tok ci télé nga xamni sénégalais yépp ñu koy sétane bu fekkon dafa tok ak njabotam sax li war na leen ko rus netali njabotam kessé kessé kessé mu tok na ñom lii waroon nañ ko rus a nettali damaa xam ni paa boo xam te nii yaa ngi romb soixante-dix ans nga fekk ay xale yu ndaw di dugg ci ñoom te paa bi nee li mu yoroon yëpp da dugal ci benn mbuus ndaati daw kon bi taatu nañ la génn kër gi ah. waroon na àggale wax ji mu leer parce que paa bu fekkee ku sax neen la génnee ci kër gi waroon nañoo wax ni kat kii man ba may daw samay dambalu neen laa génne di daw parce que nee na yëpp da ko dugal ci benn mbuus. takku ko daal di teud sumé ko na ba sangu ba teud jaaxaan di wajal fanan kon sumé ko na mom pare na moom pare na c'est que nga ñi motax buñu gisé yenn ndaw ñi di def yenn yi no waruñu mën a jaaxal quoi parce que li mo reflété ci ci ci société bi quoi parce que bu fekkee mag ñu mel lañ am ni ay pa yo xamanteni dañuy def sax seen mbirum ñoo toog ci tele yi léegi romb nañ grand place yi de grand place yi naan toog nañ di damyee di nettali seen ay kacapan yooyu noonu léegi romb nañ foofu léegi ci télévision la ñu toog ne ko xam nga mag mu toll nii mu toog ci tele di nettali lu mel nii fekk ab xale bu ndaw dugg ci moom fekk xale bu ndaw naan moom mu ëpp dooleeg su ma yëngatoo ma tafu ci miir bi ma tafu neen dafa tafu ci miir bi bañ a def benn mouvement nee mu def contournement <laughs> dafa mel ni paaba rek paaba gisoon xale bi ci koñ ba ñu may ko ko ñu may ko ko ndeysaan paa bi ñëw fanaan si xale bu ndaw ah paa bi comme paa yi rek ay quatre-vingts ans ñu may ko benn xale bu ndaw boo xam te ne ay vingt-deux ans la ma mu ñëw France yi mais juru sa àgg ci kaw ndaw si ah parce que ndaw si dafa foog moom rek paa bu wàcc foog moom nii rek xam nga parce que paa yi ñoom téléphone yi yor noonu téléphone 1960 la woon te léegi téléphone yu bees yi nii mooy xale yu jigéen ni téléphone nouvelle génération la dafa am Android da nga ci mën a télécharger say WhatsApp ak say say lépp ah mais bu fekkee téléphone yu yàgg yi nga bëgg cee wàcce yii nii application yu bees yi antunu ko parce que amul mémoire boobu noonu. paa loolu moo leen dal dañoo fekk ay smartphone ak ay smart TV bëgg dugg ci ñoom te ñoom ñi nga nekkoon tele yi 1960 wala ay téléphone yu 1960 lañ woon amuñu woon mémoire léegi bu leen jëlee téléphone yooyu nag bëgg cee wàccee application yu bees yi yi Android yi yor non téléphone dañuy dof dañuy dañuy yàqu mais paa yu caga yi bëgg topp dëkk bi. ne xalé ndaw fu nek di len rasatu ba jeex top dëkk bi rek di cagatu pay mom li len fi nek motax bo boo gisee ay boy yi ni dem di fanaan sen ay far ci ay appartement bu len len mere bu len len mere parce que ñi la ñi ñi ñooñ ci yar et puis nga tok sa njabot di la déglu télé yi Sénégal gi yëpp di la deglu ngay nettali histoire ñak fayda yi ngay nettali histoire yu ñàkk fayda yi sama benn waay bu ma togaloon jamono yële ci ginnaaw nee na sëriñu papaam sëriñu papaam day ñëw ci kër gi chaque année ndekete mi ngi xool doomu paa bi dafa xëy bi rek benn année ñëw daane paa bi jox ma sa doom ji àddiya paa bi ñëw ne doom ji jox naa la àddiya ci guddi gooru sëñ bi jël commencé def li muy def même pas un an mu am doom mu ngénte saa yu dem dakaar jaar fa dëkk baa ngi ci côté Tivaouane fii saa yu dem Dakar jaar buy kii at ñibbiwaat bu mu demee ba femme bi a deuxième doom moo xam ne kii gis wee ni commencé wàcc ak yooyu noonu mu daan ne euh, ndaw si daan ne paa bi maanaam kii naa ko yeewi naa ko léegi ndaw si mi ngi ci dëkk ba rakam bu góor moo may nettali lii de mu ne ndaw si mi ngi ci dëkk bi kenn ñimewu ko takk koo wax mu ne i jabaru suñ diglu woon kii koo wax kenn ñimul takk ndaw si léegi ndaw si mu ngi ci dëkk ba waaye de fa daf fait des années et des années amul kenn ku koy takk léegi bu demee ba peut soxla boppam yëfu ñàkk fayda rek la mën a def parce que kenn koo wax mu ne ah ñu ne eh, jabaru seen digal woon kii mën ñu ko takk xam nga lii nii ci réew mi ñu nekk nii ñu fiy gis yu ñàkk fayda yi ay mag di ko def ñu gis réew mi coono bi ñu nekkee ay boy ndaw dem di lënkoog ay paa di tok di fenn di dajale nan ay dëkk baangi dox liñ fi réaliser gis nga dëkk bi ni ndaw ñi bu mu jam gi dañ koy dox gis nga gis nga dama koy waxale tamit taaliba Sëñ Moustapha gis nga fi aduna bi yëpp aduna bi lépp combat la aduna bi lépp combat la gis nga ndaw ñi il faut ñu taxaw ci suñu dëkk bi il faut ñu taxaw ci suñu réew mi comme dëkk bi laajul euh, euh, jarul une révolution mais ñañ taxaw temm ci li fi nekk ñu jëm ko changer pacifiquement ñoom bu ñu ko bëggee xañ pacifiquement nag fu ñu bëgg a yóbbu ñu fekk leen fi parce que réew moo xam te nii ñi ko ngan ko 1960 ba léegi koo dégg ne bàyyi na rek dafa dee koo dégg ni bàyyi na rek di sàcc àll réew mi lekk àll mi rek ñu nekkoon ci politique bi moom day dañ euh, moom dañ ci nekk ba dee rek dagale ay milliards seen njaboot seen njaboot bu ñëwee toogaat suñu kanaw ñu naan doomu diwloom politicien la papaam politicien la homme de homme de l'état la woon nag ñu nekk suñu bopp yi di ñu sonal ak di ak mel ni ay pot yu ñuy tëgg sunu nopp yi. gis nga il faut ñun ñu taxaw ndaw ñi waxtaan leen nag sunu bàjjen ak sunu compagnie élection locale yi ñu ngi ñëw malgré ni ñoom sàcc nañ sunu ay millions ba pare nee nañ ñoom ñoo ay million legi eh, ku yoru million mëno don candidat ci ci ci maire yi gis nga ñi fay ñew ak wa keur Massar waaye jooju njiitu ek Akile boobu ñëw foofu Akile Sénégal yi dem na ngeen rak dossier yi wala ngeen dégluwaat yeen live pap Alé Niang sunu ay milliards lañ door sénégalais door lek lekk sunu alal sacc ay milliards sunu sunu ginaaw ba paré ñi tay ñu ngi tok neen ñi dimbali nit ñi. mal ni benn Bougane Gueye rek ci ci ci Sénégalais yi dóor jël àllu Sénégalais yi dem toog jàpp sa njàmbur wala ñoom dañoo yaakaar ni ñun gis nañ fi ñu waayee di rek ñun dañoo yaakaar ni Sénégalais yëpp dañoo waayee di gis nga nouvelle génération bi gis nga jeunesse bi nii jeunesse bi nii ni ni leen ni daloon paa yooyu rek la leen dale parce que paa yi ñoom seen téléphone yàgg yi boo ci wàccee yenn application yi kii gis nga ñii ñu ndaw ñi ñoo mën a régler dëkk bi ñu ndaw ñi ñoo mën a taxawu dëkk bi. gis nga du burkinabé yi ñoo ñëw régler ñu réew mi du burkinabé yi ñoo ñëw fexe suñu dëkk dox. France mële toog di ñu imposer ay loi di imposer lépp ñoom ñoo ko toog seen dëkk mi ngi dox ñun ñu nekk suñu réew ñu jël sunu ay doomu réew di leen exploiter au sein même ñu muy liggéeyloo fay leen fay bu baax au sein même ñu muy liggéeyloo ak heure bi ñu liggéey yëpp mënuñoo amuñu fay bu baax lu ñu fayee ko balaa weer weer dee ñu leb boo boobu di wax Macky Sall liggéey na bu baax euh, def na bilan li ñoo xam ne def nañ fi 30 defuñu ko fi moom bu génnoon buntu këram xool ñu nekk si wutu këram rek war na ruusoo wax. Warna na rus wax gaay begg na naa lool wax dëgg yalla doon partager yeen xamna guddal na ma ngi djegul na ci temps bi nga xamne djel jël ko mais nak rew mi wax deug yalla ndaw ñoo taxaw ne dañoo bañ bu mu jam gi lañ bëgg dok waaw pa yu kacapan yi ni di tafu ci mi rek di contourner wu ak ñi di wax ni xamal mbay mi dox na ci rew mi yeen ñepp di leen leen sol ci ben poto day stand leen ci mbedd ma parce que ay mbalit ngeen ay ginaaw kër ngeen ay nafare ngeen yeen jeunesse bi bu gan ngeen dani bu mu nax seen parents yi bu mu nax suñu yaay yi waaw samay wa kër mom ma ngi wax ak bu gan ngeen dani moom fii mënoo fe naxé comme ni ñu Macky Sall naxé won mënul ne. bëgg nañ leen bu baaxa baax suma gaay di leen ziar Aïda ñu ngi ziar ñu lay ziar baax Arona ñu ngi lay bëggee Ken Maria sec waaw Omar cham ñu leen bëggee gars pa Fatou Diallo ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax <laughs> PA ñu ngi lay ziar waaw di ziar gaa yëpp wax dëgg yàlla di wax ni réew mi sunu réew la kenn Maria ñu lay ziar di wax ni réew mi sunu réew la réew mi ñoom lu nañ jarap yàq ko rek ñun nañ ko jarap ñu defar ko Abdou Kébé ziar nañ la bu baax a baax a baax Aïda moom ñu ngi lay ziar bu baax xam nga moom sunu yaay ju baax la et puis infatigable Fatou ñu ngi lay ziar bu baax. waaw di jaar ñëpp wax dëgg yàlla di wax ni ndaw ñi ñoo bañ waaw bu mu jàngi moom day dog moom incha allahu rabbi Moussa Niang ñu lay bëgge bu baax Semboli ñu ngi jaar ziar waaw di ziar gaa yëpp ah wax dëgg yàlla PA di bëgge gaa yëpp comme dab rek waaw xam naa bala yàgg incha allah ñu gën a yaatal incha allahu rabbi fe nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa dee dee dootuñu fi nangu ten fastar jaar nañ la ok xam naa caaw caaw suma gars yi gasama ñu lay jaar baax Mohamed ñu ngi ñu ah. leen jaar jaar gars ok merci beaucoup finangu bo moja.